fi daje ci waxtaan ak atelier boo xam ne tàggatu ci atelier boo xam ne dañ ko tuddee mentorat mentorat suñu ko faram ci baatu olof dafay mel ni ñun dañu tànn ñenn ci ñun ñu war leen mën a gunge jox leen ay jumtukaay won leen yoon bi nga xam ne naka la ñuy def ba mën a xëccaat suñu yeneen nawle jigéen ñu bëgg a nekk ay conseillère municipal loolu yomb na yombul yomb na parce que nit ñi tàmbalee dañu nekk ay kuréel ci commune bu nekk kuréel yaa nga fa organiser wu donc am nañu autonomie boobu mais ci biir kuréel yooyu dafa am ñu ñu ci tànn ñoo xam ne jot nañu def mandat mandat électif boo xam ne nekk nañu conseillère ci 2014 bi wala def nañu deux mandats expérience boobu la ñu bëgg a jëlaat ñu def ci ay jàngat parce que nekk conseillère pour nekk conseiller rek amul amul solo conseillère boo ko nekkee ci sa gox dangay amal gox bi njëriñ dangay taxaw ci soxla gox bi da ngay gunge sa population seet yan problème yi nga xam ne moo nekk ci biir gox bi ñu di ko indi ci conseil municipal bi am na ñenn ci ñun ñoo xam ne tey dañu nekk ay présidente de commission man mi di wax ak yéen commission sociale laa nekk ville de Dakar te ku ne xam ne ville de Dakar fait beaucoup de social une politique sociale bu ville de Dakar di def ñu ngi ci di ci liggéey bu baax ñu am ci ay jàngat yu rafet am na ci ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi ay commission dans les mais commission yi doxul commission yi doxul aussi non on peut partager les responsabilités lu tax doxul parce que tabb nit rek bu tabb ko loolu moo fi war a jeex jigéen ñi ñoo war a changer ñu xam ne nekkatuñu fi rek pour di fal ay nit ñun war nañoo mën a falu mais palu boobu dafa ànd ak ñu am jàngat dafa ànd ak ñu am xam-xam boo xam ne bu ñu faloo lañ ñu dénk ñu matale ko mën ko doxal ko pour mu mën a jëriñ population bi. mën a wax rek mooy defaruwaat rek taxawaay jigéen moom jigéen ñi yàgg nañu taxaw. mais li ñu seetlu élection yi ñu ngi koy laam-laamee dana am ak du am ak fu mu mënti doon ñun suñu kuréel bi am nañu euh, chance nekk en avance maanaam jiitu nañu loolu moo tax ñu bëgg defaruwaat defarwaat defarwaat bu am solo jigéen ñi nga xam ne tey du ñu bëgg a nekk ay conseillère il faut ñu waajal leen dañ naan gis de dañuy xaar ba affiné këtt ne jon ñu daw def ay formation daw xëcc ci jigéen ñi loolu aussi lu ñu war a changer la ñi nga xam ne dañu bëgg nekk ay conseillère il faut ñu teg leen ci yoon jàppale leen tàggat leen ay atelier yu mel nii rek moo ñu ci mën a may nekk nañu sax ay conseillers gaa ci biir conseil municipaux yi en nombre mais qualité bi dafay am problème bëriwaay bi aussi liñ naan l'efficacité ne fera jamais la nombre suñu baree aussi te duñu ñu joxe résultat yi tax ñu tax ñu ñu fal ñu day am problème ne tey li koy dindi mooy ñun ñu mànkoo mu am solidarité bu dëgër suñu biir ñun jigéen ñi li ñu koy may mooy ñu xam fan la ñu teg suñu tànk ñu xam sujet yi ñuy waxtaanee problématique yi am dans les communes ñu mën di ko waxtaanee indi ci ay saafara def naa su ñu nekkee doole ñun le groupe des mentors jàppale suñuy nawle jigéen yi bëgg nekk ay apprentis conseillers yaakaar naa dinañ ci am résultat boo xam ne sax dina weesu lu partenaire bi doon xalaat te mën naa nekk ñu ngi ci liggéey bi di ñaan yàlla mu gunge ñu ci. dara bi dañ koy wéyal parce que lu tax mu ñu ñëw Grand Dakar ndax siège bi ñu am Grand Dakar la nekk te ñi ñu fi dalal tey Union des femmes de Grand dañu bokk ci forfait dak looloo tax ñu def premier atelier bi fii et atelier yëpp dinañ ko wasaare yóbbu ko Sicap yóbbu ko Géejawaay yóbbu ko Bargny yóbbu ko Rufisque yóbbu ko Kër Massar wala yóbbu ko Médina donc noonu lañ ko fas yéene doxale